asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen ziyaara ci weer bu tedd wi ñu nekk euh, di nuyu téléspectateur u Leral TV yëpp euh, ak di nuyu senegal di nuyu mbokk jullit yeeg ñëpp ñu ñu bokk Sénégal waaw gàmm moom ah ana lañ ci daan def rekk ndax gàmm moom Euh, Cheikh El Hadj moo ko indi ci réew mi ah mu tey wax dëgg yàlla mu nekkoon lu am solo ba Sénégal ñëpp di gàmm eh, loolu moom dañ koy sante yàlla ndax lu baax dañ koy toppandoo ah eh, jigéen ñi nag xëy na taxawaay bi dina changer tuuti ndax bu jëkk jigéen ñi ñoo daan dalal gan yi ñooy togg ñoom dafa am rôle bu ñu leen féetale woon ba léegi rôle boo ngi boobu ngi fi. am na ñoo xam ni soxna yi ñu ngi ci seen i waañ di togg ndax yàlla dafa dogal ni que Cheikh El Hadj jigéen moom amul si laa sant amul jóob laa sant ñëpp ca waañ wa boo demee ñun suñu bàjjen yi dañ leen juddu fekk leen ñuy togg ci waañ wi suñuy maam mag yi dañoo juddu fekk leen ñuy togg ci waañ wi tey jii itam boo demee soxna maam Faama soxna Aida bu xalifa bi koo dem këram moo yore waañu boppam du bàyyi kenn togg kon nag loolu moom tradition la ci suñu kër ah waaye nag jamono day dox di dox di dox ba tey xëy na jigéen ñi sama genre gi jàng nañu dem nañu am ay diplôme comme tout le monde et role les rôles dafay un peu changer dafay évoluer du changer mais day évoluer xëy na ñun suñu tarbiya mënuñu ko def ci wàññi mais ñi ngi koy def feneen parce que loolu yëpp ci cadre tarbiya la dugg rek ndax ñun dañu nekk ci école mystique euh, école mystique nag boo ci nekkee dafa am yoon Euh, da ngay tarbiya te tarbiya nag da nga ciy wut ngërëmu borom kon nag ñun ci cadre boobu la ñuy liggéeyee donc ñun sama genre gi nga xam ne ñoom soxna maam Fama ma sànni leen xeer ñoom ñoo féete woon waañ wi ah ñun nag sur le plan intellectuel peut-être ak cellule Zawiya Tijane ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñun fa la ñuy taxawee donc euh, euh, jàppale rek parce que dañu am suñu ay frères ak suñu ay papa xëy na ñoom mënuñoo nekk fépp. Euh, de aussi ñun tam ñu jàpp ci foofu rek dama mës a dégg sama papa moo koy laaj ci wàllu jigéen mu ne ma ah góor baax na jigéen baax na ma ne ko mu ne ma yitte ku def yitte yàlla fay la et loolu rek la ku def yitte yàlla fay la man ci cadre boobu rek laay laay eh, def say sama action xëy na foofu laa mën a intervenir maa ngi intervenir fi ma mën. xam nga. Euh, waaw dégg am na ñu nag ñu xam ne ñu ngi fii yore seen i daara. Euh, kooku ci ci wàllu éducation lay doon euh, ñoom soxna Ndeye Fatou Kébé ñoom ñëpp euh, ci kër gi lañ bokk ñu ngi yore seen i daara mais ñun en tant que membre cellule Zawiya Tijane ah kooku moom moo yore communication gàmmu gi mooy communiquer mooy li ñuy gis ci télé ci rajo yi la plupart ñoom la ah xëy na liggéey bu ma ciy liggéey duma la wax A ba Z mais euh, dama ci contribuer à beaucoup de choses je décante les situations je euh, on fait on gère la presse vous la presse assez difficile <laughs> donc euh, ñu ngi gérer presse bi euh, avec tout ce que cela comporte ñu ngi gérer la cérémonie officielle qui va se tenir demain inchallah ak yeneen on va faire la, le spectacle son et lumière tey Euh, on a fait l'atelier de la finance islamique avant-hier euh, on a fait le symposium te yooyu yëpp dañ ciy yëngatu xëy na du ñu gis euh, ci devant de la scène mais on est en derrière et on gère donc côté boobu moom bon moi je gère l'entrepreneuriat fémine l'entrepreneuriat communautaire Euh, ci wàllu zawiya cellule zawiya Tijane parce que loolu mooy sama cheval de bataille maanaam. waaw laalum koppar beeg liggéey bi <laughs> parce que nit yi il faut ñuy liggéey am nga taalibe tijan moom ñun dañoo xaw a ñun dañoo xaw a euh, kii dañ naan cheikh moom liggéey na lépp dañ jege def suñu mbaxane yu baax dal xel yore suñu kurus yu rafet ak suñu ay parfum yu neex euh, di xadra di wazifa di jàng tey si di xadratul juma def lépp di di lazim mais au-delà du culte le culte euh, communauté dafa am lu mu war a euh, lu mu war a force communauté dafa war a dafa am lu mu war a lu mu war a indi lu bees maanaam comme j'ai toujours di ñun tijaan yi mën nañoo ànd wasifa mën nañoo ànd def lu nekk mais mënuñoo ànd liggéey man si c'est mon constat hein peut-être que je me trompe mais c'est mon constat donc aujourd'hui il faut ñu am benn dynamisme benn affaire bu bees maanaam ñuy ànd di liggéey te ñun suñu cellule de base mooy daayira daayira sëñ Babacar Sy moo ko indi Sénégal c'est c'est la moo fi njëkk a indi turu daayira et aujourd'hui euh, on a des milliers et des milliers de daayira à travers le Sénégal et dans la mais il faut quand que c'est cette force populaire ñu traduire ko en économie quelque en réseau communautaire et que man loolu laa gëm dama gëm ne que jàppalante il faut ñuy jàppalante Sénégal bu communauté yëpp doon jàppalante tey ci ngi ci beneen niveau Euh, mais euh, du ñu jàppalante trop euh, moo tax ñu bëgg indi lu bees maanaam entrepreneuriat communautaire commencé ko y a des programmes qui vont suivre duma dugg ci biir détails yi mais on va essayer de voir comment force populaire ku am ressources humaines bu baax mën nga def lu nekk parce que nit mooy base de tout dans le monde donc ressources humaines baa ngi fii dans les daïras tu trouves des milliers et des milliers de jeunes mais la plupart ne travaillent pas kenn liggéey kenn wala ñetti nit ñooy nekk ci daayira bi ñooy liggéey yore daayira bi bu cotiser jotee ñooy cotiser bu leneen jotee ñooy cotiser mais quand même il faut aider ces jeunes. mais même bu dee bu dee liggéey bu ndaw la ku nekk di ci am sas tuut baax na au moins l'essentiel c'est de commencer quelque part donc ñun daal loolu la ñuy liggéey bon c'est pas facile nag mais on va essayer <laughs> on ñun de xam nga on est ouvert bon état nag. état la état dafa am lu mu lu xaw a ragal man dama jàpp ne état yi suñu état yi dañu xaw a ragal communauté religieuse yi quand on s'organise rek dañ naa ah, ñi fuñ jëm parce que il voit toujours les élections les élections les élections alors que euh, dynamisme bi ñu jël c'est pour nous d'abord bu ñu ci état fekkee tant suñ ci état fekkul ñu def liñ mën euh, état nag ñun ñoo ko fi teg aussi il faut mu koy fàttali ça ne m'intéresse pas la politique en tant que telle <laughs> euh, def naa fi benn incursion bu ndaw mais bon c'était juste pour aider des jeunes qui voulaient qui yu nga xamoon dañu am ambition ci réew mi ma jàppale leen mais la politique en tant que telle am na ñu ma politiqual euh, sama papa dafa daan wax ni ku am ëtt sa ëttu maam nga mën faa wax ñëpp dégg la soxla woo dugg ci ëttu keneen donc te ëttu politique tel que ça se fait au Sénégal dafa xaw a doy Euh, nit ñi politique c'est devenu trop personnel bu njëkk nit ñi dañ naan politique sur des principes mais aujourd'hui c'est devenu personnel haine bi day bari rancœur yi bari te waaw te loolu amul solo c'était des des opposants dañ daan opposé mais amul woon animosité dañ daan def nu mu gën a rafetee parce que ñooñu réew mi woon pour man réew mi moo leen intéressé woon mais tey aujourd'hui c'est waaw un peu d'élégance mais aujourd'hui ce qui se passe dans ce saagante waxante lu ñaaw ŋàññe dañuy ŋàññante ba ci seen i maam alors que le maam il est décédé depuis longtemps yoonam nekkatu ci wax dëgg yàlla mais moo lay wan ni rek rek ça beaucoup changé moo tax politique moom ci dëgg-dëgg baal naa leen ko moi je préfère faire euh, politique beneen politique sociale peut-être loolu laa gën a gëm le social que la politique politicienne que je vois dans ce pays waaw xam nga dafa am benn mag mu mos wax ne ma boo liggéeyee yàlla ba mu ne askay euh, nit ñi taxuñu wax Alaaji Malick moom li mu liggéey liggéeyal yàlla ñëpp xam nañ ko euh, donc euh, aujourd'hui bu ñu dogoon dix ans bu ñu gàmmul itam les gens toujours venir parce que même quand on est ci biir pandémie da ngay ñëw week-end Tivaouane c'est rempli parce que nit ñi dañuy nam vendredi les gens dañuy quitter Dakar ak fu nekk ñëw Hadara parce que ñun suñu suñu suñu tarixa dafa am rituel rituel bi mooy li ñuy def lazim wazifa hadratu juma te loolu Euh, des fois du sax jar du sax jar ngay ñëw ci sa sëriñ mais les gens dañu bëgg Tivaouane ba nga xam dañuy dañuy jaral ñuy ñëw donc euh, même suñu toogee deux ans gàmmoo yu ñëw cet engouement c'est naturel ah tu sais bëgg gis nit mu jaral la mu nekk sa sëriñ yàlla yow yaa koy tànnal sa bopp donc euh, te yàlla moo la koy baaxee te j'ai toujours di dans cette ci suñu kër suñu kilifa diine yi ñu am tëboo rek gëm leen ñoom ñooy choisir seeni njaboot te chance la nga bokk ci ñoom que ça que tu sois murid tijaan xaadar whatever euh, mais pour nga bokk ci seen njaboot ñoom lay neex d'abord et ça c'est important euh, chance la parce que am na ñu juddu Sénégal maa ngi Sénégal gëmuñu dara am na ñu juddu Sénégal maa ngi Sénégal ñu ngi ci beneen feneen mais le fait que nga intéressé wu à ses confrères que ça soit confrères tijaan mais c'est une chance ah moi je dis c'est une c'est une grande chance nga côtoyer leen c'est nitu yàlla yi ñu am nga côtoyer leen nga nekk ci seen keppaar dafay am lu muy def ci yow mais c'est pas étonnant que le Sénégal boo xoolee parmi tous les pays africains mais li fi am amul benn dëkk et les gens doivent se poser la question pourquoi d'ailleurs moo tax su ma gisee nit yi di ŋàññ si sëriñ yi ak kilifa diine yi moi au fond de moi ça me parce que je crois que ñi leen di ŋàññ xamuñu rôle bi ñuy jouer fii je crois ils n'ont aucune de ce que c'est chef religieux, que ce la les Tidjanes, le Mourid, le Khadr, le Layen, le... ils ne savent même pas. Ceci, ils sont, waxuma la stabilité sociale, mais dañuy dalal xelu askan wi. Euh, bis ma bàyyi génnee àddina Sëriñ Abdou Aziz Alamin dafa am benn xale ndeysaan bu ma dégg mu ne ma mu ñëw di ma ma xam nga bu njëkk bu ma jaaraan ci buntu kër gi mu ne ani góor gi mu ngi ci kaw ma ne ko ñu ne ma waaw mu ne ma day dalal sama xel et c'est important nit li dal xelam te Sénégal sëriñ ñi ñooy dalal seen xel. kooku kenn mënu ci dara on est noonu noonu la ñu mooñaalee on a on a on vit avec sa aujourd'hui même dans une famille di nga gis sa papa nekk lii sa papa nekk la nga gis kenn rek moo ciy xëy na beddee ku nekk mais ñuy des ku nekk di nga choisir sa sëriñ booy jëm xale nekk xale peut-être pas mais boo nekkee mag tuuti rek tu choisis parce que xam nga ni sa stabilité foofu la nekk parce que itam kilif suñu kilifa diine ñu baax lañu après tout si c'est ah si ñu baax lañu ah. ah man de dañuy dalal sama xel. Ah, waa dëkk bi moom dañuy dalal gan yi ñun ñooy dalal gan yi macha allah ñu ngi ci nag lépp xëy na bu lépp matalewul itam on va faire peut-être soixante soixante dix quatre vingt pour cent parce que xam nga fu ñëpp ñëpp di dajee dafay métti il faut xol yi di yaatu. waaw séeréer yi <laughs> yaa ngi tooñ séeréer yi mais séeréer yi tafu poos yi nan nu may rek ba gàmmu gi passé <laughs> bokk nu bañ a tafu sama gars ah, di ñaaxaat taalibe yi rek mbokk taalibe yëpp bu ñu ñëwee ñu ànd dal ànd ak yar surtout ñun taalibi tijaan yar lañ ñu xamee ànd ak dal ànd ak yar ah ñëw nag taataan li kilifa yi bëgg ñoo joxat moo sañu nee naa leen gàmmu ci la ñuy jox suñu feuille ba déwén donc ñëwaat taataan leen def suñu feuille ñu jox ñu suñu feuille de ñu tàllal leen suñuy loxo ziyaara mag ñi fi nekk ak ñi fi tëdd xam ni ñooñu ay mag yi diine lañu ay nitu yàlla lañu te demuñu fenn ñu ngi fii di la dégg donc loo leen yàlla moo leen ko defal loo leen ñaan ci seen barke ku ko nangoo ku ko nangul boo ko ñaanee boo taxee fii dogu ñaan ci barke sëñ Babacar Si day am boo taxee fii dogu ñaan sëñ Alaaji Maalik day am loolu yàlla moo leen ko defal kooku kenn mun ci dara dama mës a nekk ak benn sama benn mbokk murit mu ne ma man murit saadix laa sëñ Tuubaa rek laa gëm mu ne ma waaye nit yàlla bu nekk da nga koy nangul la ko yàlla may mu ne ma am na loo xam ne bu ma ko bëggee damay waaxu ba sëñ Babacar ne ko hey du ma sax dugg sëñ Babacar yow mii sama lii ak lii soxla bii laa am balaa may yegg si Dakar mu faju te man mu ne ma man bokk ma fii donc loolu nit ki nee nañ boo ko fekkee ci mayam xeeb sa bopp loolu yàlla moo leen ko may donc bu ñu ñëwee nañ ñaan suñu soxla mu ànd ak dal ak tey euh, ñu ëpp ñu ubbi xol yi bañ a xuloo bañ a saagante bañ a dara def ndànk rek ñëw taataan mag ñi ñu jox ñu suñuy yóbbal ñu ëmb suñu këll ba déwén incha allah yàlla comme ni xalifa bi neex na neex waaye na neex waaye dans pas dans le la na neex te dagat <laughs> incha allah nag asalaamaaleykum wa rahmatullah